ah cum nii rek la mën a demee Ali Baba Kumba Naar Samba tase naa moom benn yoon laa am sansu dem soirée Samba pesé man gisee Samba bët ak bët ñu gisee Firenze gii Samba néeg bi mu dugg du ko génn Samba mu ngi ne buq rek ci néeg bi mel ni seet bu lalu Samba du génn Samba même bu génnee jàkkaarloog nit ñi xale yi bëgg a wala nangam sàmba du siggi xool la seen bëri ñeent sàmba day sëgg rek. mel ni kuy seet dara ci suuf sàmbaa ngi sëgg rek mhm. ndeke booba sàmb moom am na leneen lu muy xool <laughs> lu dul askan wi mhm. ok ho capito naan si tutto man dama tiit xam ngeen lu tax dama tiit ñiy xeesal léegi laa xamul fan lañu jëm ndax xeesal niñ ko joxee bopp ak liñ ci yàq ci xaalis ak teint noir yi ma gis non Samba félicitation macha allah xaw ma ku takkul ku rafet mais yow am nga.